mbokk yi arbitre bi sifflé na Saliou Malika général Malika leen jàkkaarlool Saliou moo ñu woon ginnaaw Saliou Ngom Malika général Malika à gauche Saliou Ngom Malika Saliou Ngom général mbok yi li may final poids lourd bi Malika Saliou Ngom Saliou Malika à gauche Malika daw na jël bi Saliou def déplacement Saliou Ngom moo woon ginnaaw général waaw Ousseyn bi waay. Général Malika Saliou Ngom. Général Malika leen jàkkaarlool. Général Malika Saliou Ngom. Général Malika leen jàkkaarlool Saliou ñoo ngi fii ci arène Général Malika ëñ na ko Saliou Ngom jël na tànk ba Général Malika Saliou Ngom mbot na ko Saliou Général Malika Général Malika est-ce que daanuwul Général Malika est-ce que daanuwul mbokk yi Saliou Ngom war na ko ndomba Général Malika Saliou Ngom war na ko ndomba Saliou Ngom war na ko ndomba Général Malika Saliou Ngom Général Malika mbëpp mooy la Général Malika Général Malika Saliou Ngom Saliou Ngom yenn na ko ah Général Malika daa diis Général Malika Saliou Ngom Général Malika mbokk yi moom la ñu woon ndomba jàkkaarloo waat nañu Général Malika Général Malika daan na ko Malika Saliou Ngom mbokk yi Général Malika Ngom Général Malika Malika Général Malika mbokk yi Général Malika ngi nii moo jël final poids lourd bi